waaw ñu leen di nuyuwaat bu baax a baax di leen ziar di leen joxaat seen wàccuwaay boo déwee nuyu mbokk internet di ñaanal Sénégal yàlla fi jàmm yàgg waaye daw lii suñu borom yërëm leen taxaare leen fi àddina fi feebar tëdd si hôpital yi si kër yàlla suñu borom ñu caabi féetee ginnaaw yàlla suñu borom may leen libéré Sambour in ba fi mu yem rek maa leen di bëggee waat baax a baax di leen sar ñëw sees ñu grand champion bu mu jugee léegi léegi la jugee arène nationale daw ñëw fii général nuyu naa la idi fay nañ la ginnaaw bañ sant yàlla julli ci yonent bi di gërëm suñuy ñaari waajur di nuyu waa Malika yëmbal benn barak waa Boune Kër Massar àll ba ñaax montagne mbëbës di nuyu waa ñàgg ñaaxorob waa daaru cubu xama waa Kër si de pélétance xama di nuyu waa mbëbës gi yëpp di nuyu waa waa benn baraag bi aw masin seen fay quoi une fois aw ma seen fay gars yi mooy loolu noonu waa ñaax gars yi daal mafia général fépp mafia général nekk ñu ngi lay bëggee di la siyaar di la jox sa wàcc waa ba jox bi ah. jóge si écurie bi ne sa première sortie écurie benn baraag mbooloo wàccaay bi nan la waaw ku ne xam na ku xool général ni mu doon ñëwee ci làmb ak ni mu ñëwee làmb tey waaw ku xool xam ni changement bu bëri am na. vraiment di sant yàlla nag ndax rëccuwuma li ma doon ñëw écrit benn baraak mbooloo mais man nee naa fépp benn la Malika ak benn baraak mënoo taxaw ne Malika fii la yem wala benn baraak fii la dafa mel ni damaa génn ci kër ñëw dugaat ci kër loolu laay wax quoi damaa génn ci kër ñëw duggaat ci kër quoi vraiment ñun ñëpp benn lañ barki yeneen TV mais daal kontaan naa ci waa benn baraak jóg 100 pour cent Malika yëmbal bi yëpp ñëw sa ginnaaw non am ci contentement vraiment 100 pour cent bi aw ma seen fay billaay wallaay wa taalaay xam nga tey boo gisee ñoom ñoom Diaz ñoom Papa Dia ay ñoom Kara Doole suñu garaay gars yi ñoom armée gars yëpp mafia bi yëpp bàyyi seen diite yëpp ñëw ñoom Boy Malika Bulldozer xam nga loolu dafa rëy barke Seydina Mohamed kon di wax ni ñun bëri nit mënuñoo tàqali mun nañoo nag bañ a bokk écrit mais na nit ñi di waat seen xel ni tey jii nii ñëpp mënuñoo bokk écrit mais ñun bëri yi nga xam ne ñoo bokk gox képp ku ñuy jéem a xaajale rek yaa ngi yaa ngi yaa ngi sonal sa bopp quoi ndax ñun bu ñu bu ñu mënta mayante doole kii bu jaaree ne kay jaar na le loolu day waaw day yokk day wàññi suñ doole quoi te ñu ngi sant yàlla ba yàlla dogalee ñun mbëri ñu comprendre rante quoi. général jël Bour Sine dafa mel ni yéen ñaar général kii de ba Fils de Balla boole Eumeu Sène si boole kon sama ñaari adversaire ñu leen boole. barki yàlla xam nga xam nga xam nga lu ma see dégg lu ne. billaahi wallaahi wa taalaay dama ko jël gaay naa ma xanaa dangaa dof ndax xam nga ki nga jël jàmbaar la gisoo ni mu def fils de Balla da ko xam nga da ko duma daan ko tey fils de baala ci nga moom nga mujjee ñaax mu doon xool leneen man leen làmb ba ma koy choisir xaaruma ci lu nooy barki yeneen yàlla moo xam ne ba ma xasee ba dugg ci làmb laa gëm ni lu yomb amu ci toujours damay préparer sama bopp te xam ni chaque jour lu metti li ma dund tey suba mën naa dund lu ko gën a metti quoi moo nag ba ma ko jëlee gëm ni mbër la champion la mais man it gëm ni champion la bu mag. moo tax si biir combat bi yëpp général bu ortelee day rëpp lan la. no du dara des fois xam nga da dangay jël gars yi ñu dugg génn te ku ne xam na ne man poids lourd laa te loolu la gars yi doon ëpp luñ may conseillé poids lourd du mam te man saa yi ma jugee damay damay ñëw du ma du ma du ma taxaw ba tax na des fois damay ñëw. du ma fa fekk sama adversaire moo tax may def rëbb mais sant naa yàlla ba ma ba ma liggéey xam naa ni bu liggéey bi jaarul woon yoon bu ma rëppee mën naa mën naa faa jaaree ñàkk sama combat quoi mais sant naa yàlla baax. dafa nekk poids boo xam ne du ko day dox. waaw loolay wax ci nag xam nga xam nga tey jii nii loolu yëpp boo ko gisee maanaam li ngay tàmm entraînement la ndax bu la yàlla natoo nga nekk ak ay ay mbër yoo xam ne mën nañ yaa ci gën a nekk poids lourd ay poids léger ngay contact te li ñuy def loolu ngay def da dem ba yow da ngay am naagu ci bëre moo tax tey sax gars yi ñu ngi naan damay dama dama dama damay damay dox mais tey boo xoolee sax wàññi naa lu bëri daan gën a dox nii barki yeneen bi nga daan fi mu toll nii général Malika fan la jëm. waaw xool ci suma kanam rek di di di di wax ni ñun ay mbëru gox lañ idi tey gis nga liñ topp barki yeneen yàlla Mouhamed suma yaram dafa daw mbooloo mu bëree ñu topp kon na ma gaa yi jox ci gaa yi ñu bëre. gaa yi ñan. mbër mag yi fi nekk. mbër yi mag yi comme man xam nga tey jii nii mënumaa toog cité benn mbër mais damaa def lu rëy déglu ma rek ma expliqué la mënumaa cité kenn mais damaa def lu rëy xam nga tax damaa def lu rëy man Boursine seetaan naa ay spécial am ay làmbam yu bëri mosuma seetaan làmbam joo xamante ne Boursine teggi na tànk wane ginnaaw moom day xeex ba daan wala mu xeex ba daanu xeex bëre te tey ku xool làmb ji xam ne tey Boursine dox naa ci kawam ba mu génn ay génn yoo xamante ne jaaxal nañu bëri quoi kon tey Boursine mi ma jógee champion la ndax ay champion la fi daan mbër mënu koo bañ ci làmb kon tey jii bu yàlla dogalee ma am ci moom ndam kon am na feneen fu ma teg suma bët. sa bët. mooy comme ñaan instant bii mbër mënu ma bañ ci làmb man au contraire man maa xool li may jël ndax boo xoolee tey jii nii tamit il est temps ma bëreeg su may morom. ni nga bëree bëree bëreegoo say morom. samay morom li ma sonaloon ba am na ci làmb yu ma jógee woon dama ñëpp dañ ne woon général la mën ma ñëwaat ci bii mooy loolu waaw ñëpp dañ ne woon général la mën ma ñëw gars yi wàññi sama poids cat topp ma ci xam nga àdduna moom bët li koy fàtt waaw loolay loolu laa lay wax ma wàññi sama poids cat topp ma ci ku xool général bu ñëw tey ak làmbam weesu ni mu doon ñëwee wute na trop barki yeneen bi dafa mel ni général mi ngi gis tey gëjoon nañu ko gis sa diggante ak Pika. noonu la demee nag moo tax mais nag sant nañ yàlla ba yàlla booleeg staff bu baax ak ay xarit yu yu baax ndax nit. léegi fi nga jëm lañ la fi nga jëm. yéen ñeen ngeen ma bëgg a jox. yow yaay dugg si géew gi yaa xam fi nga jëm. est-ce que na may toog di tudd tur. dafa jaadu kay ndax da ngaa si bés bu rëy. maa ngi ci gaa yi maa ngi ci mbëri ci kaw. ci comme ñan la. limal ma bëri na du ma lim xam ah, nga. la demee nag man instant bi xool leen ñi ñi ma dollool doyoo. gars yi ëpp ñu ma doole dàq ñu ma bëre gënuñu maa ñeme lu metti mbër nekk laa la wax ma doole dàq ñu ma bëre gënuñu maa ñeme lu metti muy ñoom Sa Thiès ñoom Reug Reug mafia boobu yoonu yëpp man cour boobu laa bokk. mafia ñoom Sa Thiès la nga. Sa Thiès boobu laa bokk nit mënu ma cee génnee lan lañ ma ëpp gënuñu maa doon jàmbaar naataa ba leen man ak ñoom ci lan lañ ma ëpp te sant naa yàlla. kenn ki ngeen ñaar yoon. waaw noonu la demee nag kon tey jii nii nañu gars yi lu luñ moom yii nii yëpp ni mu demee la xam nga xam nga tey jii du ma sax cité benn mbër ndax ñoom ñëpp ñu ngi ci làmb mais am solo mooy tey am na fuñ toll ci làmb te ñu bëri ñii nii ñëpp dañu am ci man yaakaar. booy xëy ñun di ma ñaanal ndam kese de dañ may ñaanal roi des arènes te li tax ñu may daal ñaanal am na luñ gis ci man te loolu ñu gis ci man ba ma koy ñaanal man gis naa lu ko raw ci suma bopp ndax xam naa ne li nëbb ci li feeñ li may li may liggéey contact wala li may liggéey ci àll bi wanee guma ko sama làmb yi dafa cité ñaar danga ne lobby bi nga bokk mooy waaw lobby bi nga bokk mooy Sa Thiès rëg kon dafa mel ni sa xel dafa nekk si ñaar ñooñu waaw ku ma man aw ma ku may bàyyi xel li ma la wax man sa waay sama mafia bi laa fi bàyyi ndax kenn ki moom yéen man sama mafia bi laa fi bàyyi déggoo ma man yow ba tey yaay cité ma daal fi ma bokk laa lay wax te ba pare bi ci des mooy suma gars yi laa fi bàyyi. barki yeneen bi su ma yi laa fi bàyyi encore une fois tey jii nii gars yi dañoo am ci man yaakaar bu rëy kon nag xama loolu noonu tamit du ay du wax moo koy mottali nañu gars yi jël ñu bëre. na ma gars yi jël ñu bëre barki yeneen bi ku bëreeg man promoteur bu ma tëgg làmb doo ko rëccu ndax suñ ñëwee dañuy yëngal suñ ñëwee te billaay wallaay wa taalaay loos bi ñi fa toogoon sax mooy loolu noonu yéen xam ngeen ci dara barki yeneen bi tam na ñu ñëwaat ba ci mukaay tim te xëy na li ngeen doon gis rek loolu ngeen di gis ñii aw ma seen fay dama leen di sant samay samay supporters samay am di jàmm samay nit ndax yéen xam ngeen li ci làmp làmb saa boo jugee ci defet day metti am na ñoo xam sax tem nga ne da am combat ñu ne mooy loolu te sax boo xoolee looloo ñu dal bëri na ñoo xam ne ñëwuñu kon tey gars yi mafia bi aw ma seen fay képp ku bàyyi sa temps ndax man barki yeneen bi maa ngi lay sant di la gërëm. tey contrat jar da ngay delluwaat si contrat non instant bi Idy sama baaraam bi dafa damm xaw ma dafa foxoj Ilis sama baaraam bi dafa dafa damm ci biir làmb ji barki arxuraan baaraam bi man damaa dalanteeg Boursin première jàppante ba may rimi sama droite la ba naan damay jàpp ndax sama baaraam bi ne teel mais xam naa ne moment boobu bu ko médecin gisoon mën naa yàq sama làmb comprendre ka mais ba làmb ji jeexee dama dem ba sama baaraam bi weng met sama sama coach moo ma delloowaatal baaraam bi ba ko gisee dafa tiit ma ne ko bàyyi rek mu sedd ma gérer ko boo xoolee sax sama làmb mujj gi droite bi damay aj garde bi rek nangootuma cee dóor mënatuma cee jàpp te ku ne xam ne ni général jàppkat la barki rasulilahi ci première laaw la sama baaraam bàyyi billaahi wallaahi wa taala mënuma cee mënuma cee tee mënuma ci def dara mais nag ñun ay jàmbaar lañ te tey jii di toppoon sama ginnaaw mënuma leen woon indil lu dul ndam waa tey bu sama bu fa sama bokkaan sax doon des mooy loolu noonu mën naa leen indil ndam ndax iri booy fii la ñuy toog du nelaw gis booy yu ndaw yoo xam ne dañuy taaba taaba dem defar ay tiset mille francs boole kook jënd ticket barki Seydina Mohamed xam nga loolu dafa dafa métti ñooñu amoo seen fay kon tey jii nii lii rek nga leen mën a fayalee quoi lii rek nga leen mën a fayee maa ngi leen di sant di leen gërëm fépp waaye nekk di bëgg général maa ngi leen sant di la gërëm quoi vraiment ndax aw ma seen fay nga tàggatoo wala ana Sika Mbaye bu mag bi billaay jaal mu ngi fi moom it di baax rek di mën a sonn ci man billaay wallaay day bàyyi ay joobam ndax man di ànd ak man ci àll bi su ma mee làmb du nelaw chaque jour day bàyyi tempsam ndax man boole ko di jël moyenam di def ci man te su may su may nawle lañ su may morom lañ su may xarit lañ mais xooluñu lu ma am ak lu ma amul ñoom soxla bu sama soxla bu taxawee ñoom fàtte nañ seen soxla jàll mention spéciale barki yeneenti yàlla Mouhamed moom ñoom Bas Kaolack ñoom Góor ñoom Abdou Diakhaaw ñoom gu ñoom ñoom Ibou Diop xama sama gars yi ñoom papa papa sama sama DG bi ak ñoom Tafa Soumaré Séri Sona sama capo bi xam nga ñoom Baye Sidi Gaynde Bamba ñoom Mbaaya xam nga ñoom Tafa taximaan sama copain bi moom ba ma amee làmb ba léegi fu ma jëm mooy loolu moo may yóbbu Tafa aw ndax xam nga dañuy toog ba si yàgg mu ne ma Zia làmb ji mën nga koy bëree ma ne ko lu tax mu ne ma non man li may dégg yow déggoo ko xam nga kii chauffeur la day wër otom yëpp général la ci def foo tourné mu ne ma Zia li may dégg am na ñoo xam ne dañ ma doon dañ ma doon nuyu sax nuyootuñ ma ndax yow kon nag làmb ji jàppal ni mën nga koy bëreel yooyu yëpp dama ko doon doxaale di ko fanaanaale comprendre nga kon maa leen di sant comprendre nga ñoom Def Kaana Daawda ñoom Daawda gars yi aw fay mën naa ne ñoom Pape Fall borom Bazeria na fi gars daal sama gars yi mi fi gis ñoom Pape Mbène ñoom Dola boo yëpp ñoom Amet oh, ak sama gars yi tamit waa Caaray encore une fois dama leen di sant barki yeneen bi 100 pour cent mbërë bi sama gars yi ñoom Amet Amet sama sama longo bi toog moom it xam nga laa dañ na suba mu woo ne ma zee tige yu bëri laa bëgg ana kiy jaay tige. comprendre nga booy mooy loolu su ma ñëwee seen atelier xam nga damay rus di nuyu tamit seen seen seen seen waajur jaañ xam nga moom it vraiment ñu ñu ngi koy sant ndax saa su ne des fois bu ñu dajee damay téye conseiller ma tam mag la aw man daal xoolal gaan aw ma seen fay dem démb damaa toog am yoo xam ne barki yeneen ya xam naa ne ñii dunduñu làmb ay français lañ jékki-jékki woo ne ma général ñun ñun dañ laa bëgg te mënuñ ci dara ndax suñu fierté nga mais ngir yàlla waay teeyal général boo teeyee mbër mënu la. génn dañ maa yaba yaba yaba yab ba ba ma demee xolal mooy loolu noonu barki yàlla loolu laa bëre booy bu ndaw dafa maa dab may dem entraînement taal sama oto booy bi général ngir yàlla na nga teey làmb ci bàyyi trois minutes sax bëgg nañ mais ngir yàlla bul togg teel déglu ko xool lan la indi ma ne non kii waxi xale lay wax ma xam fàtte ko avancé waa dem ba gis sama benn copain mu am lu ma waroon defaral ñuy toog di waxtaan booy bi doxaat ba dabaat ma fekkaat ma fa général ngir yàlla teel ñun rek lañ la laaj mais imaginel boo yooyu aw ma seen fay quoi kon booy yëpp maa leen so xoolal baaraa ngi nii borom garage Abdou Fall barki yàlla mafia ñàgg bi ñàqorob daaru cub moo ko géré daaru cub bi la mënul ñàq barki Seydina Mohamed booy aw ma seen fay ndax tey jii amaana li olof naan kuy raam di la bokk bilaay bu amee oto yóbbaale la te booy xool leen maa ñoom a yam dañuy taaba taaba mais xoolal lijjantiwuñu lu ma am ak lu ma amul ñoom nañ ma gis rek yëg ni am naa lu ma soxla ku si alkaati yi yóbbu déggoo li ma la wax billaahi mais xoolal mooy lool xoolal xoolal noonu la demee mais boo bëggee dégg dëgg ñoom da ñoom moo tax aw ma seen fay ñii da xoolal lu ne la ñuy daj ndax man waaye damaa ragal loolu déggoo li ma la wax damaa toog signature bi ne ko yow man damaa damaa am envie ñam ñu dem ardo ñëwaat waaw déggoo li ma la wax mais am na am na am na fomp <laughs> am na fomp de ku dem ardo dinañ la fomp yaa may dégg di santaat gaa yëpp di santaat mafia bi booy yi man ñii laa am booy yi ñoom laay ñëw may béggee des fois mag jàpp sama loxo ne ma yow yaay général man ko waaw mu ne sama tout tànk yi sama doom yi dañuy wax ci yow kese te loolu laa leen defal booy yi mais nii rek soo foo ñu fekk maak ñoom ñu toog waxtaan bala ka fooree sonaluñ ma ci dara man it lu ma leen ci dara yii nii yëpp day jeex mais yëg-yëg barki yàlla kon aw ma seen fay képp ku dëkk fii ci koñ maire yeeg sama dëkkandoo yi paa yi xam nga sama am di jàmm yi maa ngi leen di tuub di leen jégalu ndax làmb dafa metti indi nañ fi biir wi yëngal nañ fi xam nga am na ñoo xam ne bërki dem ba léegi duñ nelaw booy fi la ñuy toog di waxtaan ba fajar wala des sama buntu gaale te xaw ma ndax am na ay malaat ci koñ bi wala am na ñoo xam ne dañuy xëy di war a fajaru teel xëy te ñu ngi leen di déranger kon nag képp ku kuy sama dëkkandoo maa ngi lay jégalu di la baalu àq naan leen xama làmb ak yi ñoo ànd quoi di jégaluwaat ñëpp di baaluwaat ñëpp àq ok yow di la jaajëf aja tafa mooy lool